dafa nek visite bo xamné ni andi na yakar ndax président ñew na am ci région sin salum ñetti fan gisal bopam rencontrer loolu nak dafa nek lu am solo ci ñun ndax ñun xamnañ né ne économie rek mo ñu ñor té économie mo ñor ñëpp mo jor mom gouvernement bi donc giss nañ ko Sibassor won ko projet yi nga xamné ne mom lañ am ci Sibassor ndegam Kaolack dafa fess développer fa Euh, zone industrielle développé fa marché d'intérêt nationale ak gare gros porteur ah bi ma ñëwee fii tamit recevoir nañu léegi waxtaan nañ d'abord ci dynamique bi nga xam ne ni moom la chambre de commerce bu Kaolack def ba tax mu nekk première chambre tey wax nañ tamit ci marché bi laaj nañu xalaat xalaat bi ñu ko wax mooy tabaxaat marché baax na waaye fexaat marché bi ni mu mel ñu defar ko ci biir ndax man nañ tabax marché bi comme li ma doon wax nit ñi nekk ci biir ñu defaraat ko may leen ñu defar ko ndax toxal marché dafa jafe parce que seen fonds de commerce la loolu waxtaan nañ ci maa ngi àndoon ak vice président Fallou Louba ak euh, Moussukora waxtaan nañ tamit ci union des chambres de commerce ci coow liñ ci amoon mais lim ci jël dispositif yim jël ñun loolu rek lañ bëgg mooy ñu euh, évaluer chambre de commerce yi xool chambre de commerce seen liggéey ñaareel ba tamit moy ñu dem def réforme ba ay élection mëna am ñi fi nekkoon changer ba tay ciow li jeex ndax yakarna li indi ciow li rek moy ñu fi tok ëpp fi ay 30 ans ne duñ fi joggé et chaque fois bu élection wara am ñu trouver ay solution ba élection du am ñun Kaolack li nga xamné ne ñu ñor moy suñu port bi loolu yuuxu nañ ko gauche yuuxu nañ ko droite suñu port bi ak défal suñu économie bi marché yi ba nga xamné ne ni Kaolack euh, dana nekkaat zone dana nekk gën a yokk zone économique bi mu doon. kilifa buy ñëw ci dëkk ne day seet si dëkk bi économiquement je pense que devoiru euh, kii opérateur économique ñu teeru ko bi ma leen ko waxee ñoom ñëpp ànd nañ ci teeru ko euh, xooluñ couleur parti xooluñ leen nit ki nag boo koy teeru da nga koy teeru ci la mu gën a bëggee kon nag ñun ci lancé bi ñu nekkoon lañ nekk nekkuñ ci politique dugguñ ci APR bu politiciens yi tiit yaakaar ne dañuy dugg di leen xajal seen place ñun suñu liggéey mooy. fexe ba askan wi am xëy am am am am am am am am luñ jàpp du tamit suñu rôle du toog di defal ay éloge président de la république liñ man mooy opérateur économique yi jàpp leen bañ gis seen bopp ñoom ñooy ñoo war a wax président la république moo fi gën ndax ñun toog naan président de la république moo fi gën parce que dañuy yaakaar ne loolu bu ñu ko defee ñu tooyal suñu ceeb du li gën li gën moom mooy nga fexe jégga euh, euh, jariñ askan wi ba askan wi ci boppam su président de la république rombee ñu wax ko yaakaar naa nag démb accueil bi accueil d'espoir la loolu mën laa ko wax espoir la am nañ yaakaar yaakaar jooju nag mooy président la république jàpp ñu ci defar port bi ak defar euh, marché bi ak defar euh, kii logistique économique bi te loolu mooy moom incha allah dégg nañu te yaakaar naa dana ko def ñun dugguñ ci jëli maire pour ne dañuy contre état dañuy contre APR dañuy contre PDS dañuy contre dañuy jël pour am confiance aux citoyens ñu dénk ñu pour ñu mëna nek sen avocat ñu mëna nek sen euh, wax ci sen tour kon nak lolu lañ nek ba tey te incha allah mënuñ ko def té and ñu gouvernement ndax comme limay wax toujours rek bu nit ñu faté né euh, gestion des collectivités locales transfert de compétences la dañ la ko dénk kon ñun jóguñu mukk né dañuy contre ben parti dañuy contre APR dañuy contre gouvernement wala dara kon lolu la bëggoon woné pour won leen ne ñun on est avec le président de la république lépp lo xamné da koy def pour jappalé kaolax pour kaolax mëna mëna mëna yokku mën a yokk euh, te sax ñuy créer parti parti dañ koy créer pour jappalé askan pour askan wi mën laa fan la wala falat la